an bikum ñaari sàndarma yi ñu rayoon ci jamonoy Macky Sall ba pare sànni leen ci géej gi ñu réer mër kenn gisul leen ña leen rayoon na leen wóor ne kenn du leen baxal fañ leen di topp ci yoon ñu ne déetawaayeti képp koo xam ne fañ laa rayoon ci ñaxtu yi amoon Sénégal diggante 2021 ba 2024 ña leen ray tamit fañ leen di topp duñ leen baxal de yoon fay def liggéeyam du samay kàddu nag Ousmane Sonko njiital Pastef moo ko wax démb ba mu jàkkaarloo ak ndaw Pastef ya ca Grand Théâtre yéene kaayu naaw bokk na ca wal fajir yéene kaay bi ñëw ci Fulbert Sambou ak Didier Badji yooyu nga xam ne ay sandarma la woon ñu rey leen nee fay leer si du quotidien na ko ñaxtu yi tamit ñi fi rayoon ak ñi nga xam ne takk der fañ leen jàppoon di leen torturer ci commissariat yi loolu fay leer ci wàllu yoon yéene kaay bi ne kon loolu mooy firndeel ne loi amnistie bi ñu fi wote woon Ousmane Sonko fa koy neenal ngir mën a def li bëgg te mooy leeral yëf Macky kenn du leen baxal fa ñu goqi xalal ja vox populi ne fa wax nag moom Ousmane Sonko ne yonent yàlla Muhammad alayhi mooy roy ci wàllu politique ba tax na lépp luñ ko def moom Ousmane Sonko ci jëmmi boppam loolu baxale na ko waaye li nga xam ne nag kenn du ko baxale moo ñu sàcc xalalu réew mi ñu rey ay doomu aadama ak yeneen yi ni mel point acti yi ne kaay ne bi mu waxee loolu nag démb mbooloo mu bëri ma fa nekkoon lépp ndax fañ koo kontar wala a jox xaalis Ousmane Sonko nee na leneen loolu moom c'est fini intaha fay jeex bu njëkk ba fa ngeen ne amul benn loi sañ-sañ bu journaliste bi am te askan wi amul kon bind fekk suñ waxee nga ne liberté de la presse loolu fay jeex te dafa am ay patron de presse ñu jiite këru taskatu xibaar yoo xam ne nguur gu ñëw rek fañ lay téye di la attaqué di la bindal loo xam ne du dëgg jaxasala ak askan wi su ko defee nga jàq xooleen jox leen xaalis bu bëri wala ñu ñàkk fay impôt su ko defee ñu may la jàmm santage boobu ñu doon def yeneen nguur yi nee ñun kenn duñu ko def impôt yi war a fay ñoom journaliste yi fañ koy fay yëpp ndax yow bu dee patron de presse nga yor ay journaliste seen salaire yi fa nga dindi ay impôt ne fa leen koy versel ba pare doo ko verse lekk ko loolu détournement la kenn ci patron de presse yi Bougane Gueye mel ni ku naan ko maa lay tontu yow Ousmane Sonko saa faa lay wax na la li jàmp te nga war koo lijjanti nekku dem grand théâtre di wax déedéet lijjantil jafe-jafe askan wi dund dund gi defaguñ fi dara ak nangam ak nangam Sonko fa la wax ne réew moo xam ne fañ koo yàq fukki ak ñaar ndax mën nañ koo defar ci ñaari weer loolu xel nangu ko journaliste yi ñuy wax nag naan Sonko fa leen a menacé di leen xupp dal seen kaw fa leen a tontu na leen man waxuma journaliste yëpp de déedéet yenn journaliste yi lañ wax kon journaliste bu ci mer fa fekk nga doon def naka sa dund noona le Dakar ne Bougane Gueye Dany Adama Gaye Anta Babacar Amadou ko waxee ci fajir yéen kaay Sonko mel ni ku naan ko na sa xel dal ba ci rapport yi nga xam ne gis nañ ñu sàcc alalu réew mi yoon dana def liggéeyam waaye bala ñu koo def fa bale génnee attekat yi nga xam ne la yàlla xam doy na andi fi ay attekat yoo xam ne fu ñoo jub doxal yoon su ko defee ñu mën a def seen liggéey source ay yéen kaay ne opposition bi ku jegi timit Sonko jox na leen démb seen wàll yow seetal fa leen a wax ne opposition Sénégal bi xam nga lu bëgg mooy féewale ma man ak njiitu réew mi président Diomaye Faye waaye faa leen di xamal ne ki mën a def loolu maamam bu góor sax juddoogut maanaam xaju leen suñ diggante tapis rouge bi nag faa ciy dox neex ma donte xam naa ne man faay déranger le mandat yéen a ne wane na tamit démb jàppaleem ak réewum Palestine bi nga xam ne Israël fa leen a noot di leen rey rek bés bi yéen mbaamu nday gi fay jeex yéen ñii sax di samay farandoor passif ku ci saaga nit wala nga tëkku ay attekat wax lu naka su du noona yoon fay def liggéeyam kenn laa du làq pour muy leer doy na ci misaal keroog jëwriñ ji ñu dénk wàllu gu yoon famaa yónnee vidéo na ma kii la bokk mi ngi tëkku ay attekat yi loo ci xam mën na ko defal sa liggéey ci lañ ooye waa ji lu jëm nag ci li ñuy def ba suqali réew mi nee na ñoom xam nañ fi jëm tëkkaatu démb source a ne fi mu nii kay ñun ñëpp a nekk ci danger ndax sonko démb bàyyiwut kenn yoreer yéen kaay mel ni ku naan leen bokkuma ak yéen gis-gis de démb sonko li wax waxu dëgg la wax wax ju jub ak ku bëgg a suqali réew mi la woon moo woon ne ko rek point acte yéen e kaay na sonko kay dëgg dëgg démb moom fa doxal maanaam fa teg yëf yi si axe leer laneen lu leer ba yegg ca naan ja mooy ne opposition bu Sénégal fa mel ni fi mu toll nii xamuñ gémmeñ kenn déggatul leen yaaw seetal Idrissa Seck Amadou Ba Khalifa Sall Pape Djibril Fall Karim Wade ñoom ñëpp fa ñoo mel ni ñu muuma ci wàllu politique vox populi mel ni ko naan ko waa PDS yi ñoom dañu ngi leen di dégg ndax Fatou Sow installé nañ ko mu jiite jigéenu PDS ya lam njëkk a wax nag mooy faxoo waa PDS yi ñu gën a takkaayu faxe jëlaat nguur gi info yéen ne wàllu bor Bassirou Diomaye Faye xaw na yoonu Macky Sall wa de ci lépp ay bor source a moom fa kaay moom fa xamal ne diwaanu Casamance ginnaaw fitna jaak robel ya xam na beneen fitna bu fa am mooy coowal suuf coowal drogue bi nag fa gën a wulaa ñaay ci réewum Sénégal Vox Populi na aéroport bu bees bu Sénégal bii jàpp nañ fa ñaar fukki kilos yi drogue bu bon bi ñu koy xayma ci am na ñeenti nit ñun ca teg loxo yëf yaa nga amee diggante Popenguine ak aéroport ba tàggat yaram Sénégal fa mbuqi Mauritanie benn bal ci dara ba tax stade gën a bëri fi mu toll ni ci réew mi ba tax na jëwriñ ji ñu dénk wàllu wér gi yaram mën nañ cee dee wala ñu jëlee ci ay jàngoro te buñ la ci jàppe fañ lay tëj kaso kuy fodaal bañ xëmbal la téye ko nga xam ne yaa ko def waaye bu ko yàq le regard yéen a kaay fa ñoo xamal na ca diiwaanu Kédougou fa xam hay def ko tu ñaawteef yu song barab boo xam ne fañ fa yónnee xaalis ak yooyu ba para ray fa xab xale bu góor jël seen xalaal ja dem moom comme ay yow seetal da nga gis xale bu jigéen bu am fukkaat ak ñett fukkaat ak juróom jàpp cigarette si di ko def lu dara jarul ay chicha xeetu tux yépp fañ koy tux xam nga ne yéen su ngeen màggee da def lu raw tux cigarette